mais fan nga teg euh, discipline fan nga fàttee discipline de parti euh, parce que dafa mel ni seen stratégie mooy euh, ngeen bañ a aakimoo yëf yi bañ cee yëy yàbbi ba bañ a dëggal li nga xam ne moom mooy la thèse du complot bi nga xam ne Ousmane Sonko moom moo ko yëkkati est-ce que yow boo ci waxee tey est-ce que doo briser li nga xam ne moom mooy discipline de coalition non xam nga man d'accord man mënuma mënuma man mënuma porter noowu APR ak benn bokk yaakaar man Birima Ndiaye la buy leeral bu xam bokk ci parti bi ma su doon libre ma liberté moom lay bokkee fu ma bokk li ma xalaat bu jotee dinaa ko wax fekk maa ngi dund kilifa laa ci réew mi nit ñi mën a tëj ni mu kenn xam nga euh, may mun a loolu Macky Sall wax mais yéen gis ngeen fruit gis nga ko su benn bi responsable APR waxoon bu subaa huit heures nga dégg société civile bi jóg waaw guñu ko itam wax complot bi la te lan société civile bëgg Sénégal ma ni journaliste fu lan société civile mais société civile ñoom bokkuñu ci jeu politique bi dañ droit wu askan bi est-ce que tey ci problème bii ma laaj la bi am problème ak ci askan ci askan bi la bokk. am na lu war a gën a metti ci àdduna lu dal jigéen à part des viols am na gis nga benn société civile ci réew mi ku jóg au moins sax waxuma ñu faral Adji Sarr waruñu faral Adji Sarr waruñu faral Sonko waruñu faral kenn mais au moins ñu jóg taxaw demande justice sénégalaise demande gouvernement sénégalaise que nañ tegi fi si yoon mais ñun ñëpp ñu dugg suuf taabal ci ana Assane Dioma Assane Dioma Ndiaye nga xamni bu ñu ne woon Macky Sall nangam mu tepp jël rajo bi di wone ni mo fi nekk askanu Sénégal ana Seydi Gassama xanaa dafa voyage nekku ci réew mi ana Ibrahim Seck ana dégg naa gis naa te ay Yaana Mar sa dem seeti Ousmane Sonko j' espère que demain nañ dinañ seet comme seeti Ousmane Sonko j' attends Yaana Mar demain étant des jeunes ay jeunes fii bokk seen mouvement dañ seet Adji Sarr suba. nee naa Adji ana Adji Sarr. ah mais Adji Sarr dëkk loolu xam nga loolu la ko ay mbokkam man bokkuma ak Adji Sarr xaw ma Adji Sarr musuma les seen ñoo fi nekk ñoo jox suñu xalaat. man ah, gis nga viol bi mënoon na. waaw waaw mais bu ñu nit boo euh, jógee nga dem nga ne yow da nga majeur et nga porté plainte. waaw ne nit daf la viole waaw xanaa dinga nga commettre commettre avocat xanaa euh, di nga euh, taxaw. dëggal say touma donc société civile bobu ngay wax euh, mënuñu jàppale ko xamné gisunu ko ba paré question bi non euh, je suis non attends les femmes juristes mané question bi sensible na sensible bo xamné ah. euh, nit ñi foog ñu def ndax non mais waxu ñu gas ko élément yépp yëpp bu ci table néew néwuma la ñu faral kenn mais quand ay femmes juristes dafa ne ci réew mi bu ñu loree ku jigen la mën na sooy ñu jéem ko capté def def sax benn communiqué ana femme juriste ci réew mi mais nan la ñuy capté koo xam ne. gisul ko non wóorul ko Sénégal kenn mënu fi kay ma la. waaw mais numéro téléphone am boo ko woowee doo ko jot. sa euh, soxna si. xam ne dafa am lu ko metti kooku il doit se mettre il doit se mettre à la disposition de ses ma wax teel leen ci àdduna parce que man kaw kaw man sànjara laa dëkk du ma sita dëkk ma ci ci ci ci samay ba waajur ay baykat lañ dañuy néew doole ci réew mi aji saar boobu ay ay waajuram ay baykat lañ peut mais dañ ko sànni comme si amul nda amul kenn bu doon yow bu yow yow yow yow may mën a nduur sekk ma fay bu doon sa sœur moo ñëw ne la Ousmane Sonko dafa violé dëgg la dëgg du mel nii bu doon doomu magistra monsieur si yàlla doomu magistrat mel woon nii bu doon doomu ministre du mel nii bu doon doomu opposition bi Mamadou Diop Decroix wala nanga wala rakkam du mel nii parce que doomu baykat la villageois bu jóge ci àll bi

man néew ma moo na ci dëgg. ñu def non may ma may ma may ma rek. man xaw ma man nekk ma fa woon. xaw ma am na xaw ma amul li ma fi ci xam ko néew nag ci waxtaane yow ci Ousmane Sonko laa ko xamee ak borom salon bi. waa léegi borom salon bi wax na. dégg nañu version des faits commettre na avocat euh, xam nañu kan la. mais Adji Sarr anam. ah xaaral xaaral xaaral Ousmane Sonko. Euh, maanaam xaaral boo ko waxte kat. boo ko ya? ah non attention man Birima Ndiaye laa tudd kenn jiñu ma yooyu boo ko waxatee waaw kon boo ko waxat tooñ nga ma tey nag. tooñ nga ma de dinaa la boo ko dem porte plainte. soo ma Ousmane Sonko si te porte plainte. bu la waxatee Ousmane wallaahi boo ko ma porte plainte. ban magistrat mooy recueillir sa plainte. ah oui da nga ma bu ma tuddee tur yooyu man Birima Ndiaye laa tudd dëkk saa njara. Ousmane Sonko bu ma ko waxati. vraiment tudd Ousmane Sonko non non waxuma lool ma ne Ousmane Sonko.

amna ko ne dañ ko violer mais kooku noonu ken mënu ko teg bët kenn mënul recueillir li nga xam mom moy position donc il faut comprendre que association féminine féminine yi ak société civile bi tamit ñom ñu prudent parce que tay man tay li ma njort mooy ne aji sar dafa nek ci ay loxo ay nit yu ko jël té ko xeyna na ñu ngi koy préparé pour que mu affronter ah, non ay loxo mbokkam ah loolu de journaliste yi dem nañu euh, pour def seen. kon wax nañ ko kidnap li ñu xam ci moom mooy ne waajuram bu jigéen dafa gaañu waajuram bu góor mu ngi dund euh, nekk na ci ay ci ay ci ay. Ah, kon kay nekk xam nga ñëw nekk waaw mais da nga déggoon waajuram bu góor génn comme mi ngi dund waa da nga déggoon waajuram bu góor génn def point de presse ne sama doom daa réer mais ñooy nëbb seen doom parce que c'est criminel laa génn dem di taal dëkk bi. mais bu buñ gisee Adji saa rey ko tax di yow dégg ay ñoom ñoo ko wax déggoo ñaan nañ dem kër Adji Sarr lañ dem kër nangam nañ rey waa kër Macky yaa ko dégg donc vocal kay a ko dégg c'est des criminels. on est dans un état de droit. ñu xam ne mais loolu la mooy seen bëgg-bëgg c'est des criminels ay assassins lañ ñoo ko wax ku bëgg a rey nit assassin nga xool nga dem ni def policier bi. gis nga dem ni def policier bi policier la police la ils sont pour nous. Nous, la garder ba ñu sommes à l'opposition, sommes Abdoulaye Wade yor réew mi ñuy marché fi dañ doon dóor ay lacrymogène ci la bokkoon ñoom xooluñu Macky Sall l'ordre public la est ce que ñu war des war nga xol di xol ben policier muy dox ni nga jël xeer xol nga a je vous remercie yéen a image mais lolu kiko def du assassin peur. nan titre la tiital. ni diñ viol reuy Ousmane tonko si la taxaw ci problème 94 milliards ne bu ko woyé mu wuy du xaar immunité parlementaire limay xam nga ko Sénégal xam nañ ko moko wax 94 milliards mu jiji ay nit sàcc daf ni buñ ko woyé mu wuy ji du xaar immunité parlementaire day wuy jul boppam Ousmane Sonko ko waxoon mais ma yaakaar ni ñu jiiñ la viol moo gën a rëy mu taxaw dëgg këram ne du génn këram fekk amul amul amul amul amul amul amul euh, kii. Euh, contexte yi du ben non bii gëna graw le viol est criminalisé. wa motax mo mu dem. wa mais parce que dégg man nag kaay ma man eh oui ma je te défie. contexte yi man je te défie man xalé buma djign viol te violé wu ma la man bo xeyé 8h ñu ko sax sama fekk ma top les yeux dans les yeux may la ko wan la violé ah lan ma duma xaar parce que da aussi do xaj sa kër. waa mais waaw mais xaaral xaaral xaaral non non wax maay wax pare gu. non non non maay wax s'il te plaît ma sœur sarax ma rek non Ousmane Sonko tey non nekkoo jàkkaarloo non ne nekkoo jàkkaarloo dimbali ma rek. Ah, Ousmane am ay soppe am ay noonu ay doomam nga poids bi ñuy pesé tey ce que doon woon gën a neex tey Sonko dem le lendemain matin toog jàkkaarloo ndox si. démontrer que c'est faux pourquoi attendre une unité parlementaire et puis d'où vient le nom Makissal d'où vient le nom Makissal